waaw waaw bojo bojo yee seen baay ñëw na ah uh. waaw waaw uh. waaw waaw <laughs> mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Dakar asalaamaaleykum lu yàlla santaane mooy dem julli ji kon nag asalaamaaleykum mbokk yi la woon fa woon ba woon rek ginnaaw ba ñu nuyoo la conférence des leaders nuyu suñu responsable la camarade xalifa Sall président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi di nuyu bépp leader ci conférence boobu di nuyu la grande coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay ne leen mbokk yi man mbir bi lu mu ci xaw a jaaxal rek mooy daf ma def ay ree xam ngeen mbokk yi ku leen sànni xeer ngeen fayu wante ku leen sànni xotti sitéem ngeen faxas Macky Sall lu mu def nii diine ay yeew askan wi liste nationale bi du bokk day fooye xelam moo tax yamatuñu ak Macky Sall ci est-ce que dañuy bokk ci élection am déet parce que dañuy bokk ci élection wala élection du am dama wax bi leer ay di la di di di raay wax ci di raay wax ci di masla ba ñu ñuy jéem a maasaale duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg pesum kanam borom a fajal boppam suñu doomu ndey Ousmane Sonko yàgg na leen ko wax ne leen moo na leen waa ji moom lii rek la xam il ne comprend que le rapport de force lii balaa may dee ñuy teg seen xawma ay police xawma yan fii la woon fii rek la woon biig rek mars 2021 yéen ak ñun la woon xamante nañu bu baax a baax a baax waaw bu baax a baax kon nag mbokk yi président Habib si wax na ko ma amaat nu ma neneen nu ma koy waxee ci gàttal Macky Sall ak ñu mu àndal lu ñu wax nee nañu ñoom ci seen xalaat bu gàtt daanaka Sénégal mën na dem coupe du monde FIFA validé équipe Sénégal wante onze rek onze partants mooy am onze remplaçants yi mën na ñàkk loolu ban FIFA mooy validé équipe boobu fan la am est-ce que mas ngeen gis coupe d'Afrique CAF taxaw ne équipe mën na bokk ci élection wante soxlawoo ay partant ay remplaçant rek nga soxla da ngay indi vingt deux joueurs yu mët yu mën a bokk coupe du monde FIFA validé wala nga indi vingt deux joueurs yóbbu coupe d' mu mët CAF validé Macky Sall nag nee na boobu arrangé wu ko mu neex la dina la arrangé mu naqari la dina la arrangé parce que foofu la ñu toll ak Macky Sall mbokk yi nag. ngeen may ma ma wax ci waa jooju ku mu àndal mooy Antoine ñàkk jom boobu dañu ne wax ji sax duñ ko rafetal Antoine ci boppam il doit partir Antoine il dégage à partir de maintenant on exige la démission et comme il n'est pas capable de démissionner on exige de Macky Sall qu'il amène une personne responsable une personne équitable pour organiser des élections parce que Antoine Diome Antoine Nyakadjom, il est à lui tout seul un symbole vivant de l'instabilité qui peut régner au Sénégal. Nous ne devons pas accepter qu'Antoine Nyakadjom organise l'élection ici. Parce que nous sommes que ministre de l'Intérieur. am nga sax droit am ko àndal wante da ngay mettre les formes c'est la raison pour laquelle comme Antoine Diome nee na moom ñàkk jom bu mu nekkee dérangé wu ko te ñun ñàkk jom bu Antoine ñàkk jom nekkee daf ñu dérangé nous exigeons le départ à partir de maintenant de Antoine ñàkk jom ma bëgg a wax ci leer du waxu politicien ma Sall na nga dégg bu baax lu ñu lay wax Antoine Diome du fi organiser élection comme da nga créé benn problème nous allons te rajouter un autre problème mu nekk deux problèmes et à partir de maintenant nous avons décidé à partir de maintenant que suñu problème i dañ koy lijjanti ci mbedd bi parce nag comme non loolu rek dama ne ci mbedd bi rek gars ci mbedd bi rek ci mbedd bi rek dama ne man Barthélémy Dias dama fas yéenewul campagne dama fas yéenewul bokk ci élection te ànduma ci ak Ousmane Sonko tête de liste nationale te ànduma si ak Aïda Mbodj jigéen bu mën góor te ànduma si avec tous ces grands responsables le ministre Habib Sy tous ces grands responsables qui font la fierté de la coalition Yewwi Askan Wi dëkk bi Macky Sall moomu ko mbokk yi nag waxoon naa leen ci élection légis euh, locale yi waxoon naa leen élection locale yi mooy premier tour élection présidentielle bu 2024 parce que troisième mandat dañ koy tere Sénégal waa ji nee na troisième mandat xamul est-ce que c'est oui c'est non ñun nee nañu xam nañ bu baax que c'est non c'est non nag par force comme c'est non par force deuxième tour élection présidentielle bu 2024 mooy nekk législative yi wala dañ ko koy bàccal ci ci kees yi wala ñu bàccal ko ko ci mbedd bi maa ngi leen di gërëm leen sant mbokk yi jërë ngeen jëf. merci beaucoup merci. merci le maire Barthélémy Diaz. gars nee nañ sàcc liste du ko teree xeeñ ca troisième candidature dañ ko fiy tere. Macky Sall rapport de force la xam te dinañ ko ko jox.